voilà donc ci trouves madame Maria Moussa, ministre de la fonction publique et du renouveau du service public Nous nous jëmmal bis bi nga xamné ci lañ doon nous euh, formation bi ñu nous nga xamné tand leen ci administration. fonction publique nous euh, euh, doon tagat ndaw ñoñu and ci ak ministère yi nga xamné nous lañ leen affecté Maintenant, ci lim agriculture équipement rural nga xam ne représentante am mi ngi fii madame Ndiaye di gérer les ressources humaines ministère euh, aussi bi yor wàllum pêche ministère bi yor euh, wàllu euh, environnement élevage secrétaire général du gouvernement ak ñëpp ñi nga xam ne seeni ndaw ñëwoon nañ teew tey ci ñaari fan yi gaa euh, du du limbu bu bu yaatu lol mais fexe nañ ba liñu ñu ci liñ leen wara jangal wala ñu bokk ko ñom nek na dal ay euh, ay ay ay sujets yoo xam ay tam yo xamné ne am nañ yaakaar ne ginnaaw bi ñu wecc ak ñom xalat buñ ko jëfé sur le terrain euh, li ñuy xaar ci ñom en tant que agent de l'État dinañ ko matal lolu moy sababu ñaari fan yi ñu doon def ci session de formation may fatali ne ci atum euh, bii ñu génn atu 2021 defoon nañ ben bu yagul lool diaglel ko wa ministère de la santé et de l'action sociale mu tolloon ci lu mu euh, juróom-ñetti téméru agent gannaaw ñooñu nak ci lañ doon jël yenen ministère yi nga xam ño déssone dajalé dajale leen fii ci bërepp bi nga xam mom lañu tuddé centre national de formation et d'action mu di euh, bërëb boo xam ne ci ministère fonction publique la bokk et yaakaar nañ ne séjour bi euh, bu ñu dégloo ndawal ñii ñu doon recruter ki lañ doon ki lañ doon ki lañ ki loon wax sen tour amnañ nañ yaakaar que liñ leen doon jangal

koku aussi bokon na ci modèle yi ñu tannon mais li gëna am solo moy surtout doxalin bi ak cër bi ak comportement bi valeur yo xam dal daal yaakaar nañ ne agent bu ko jëfé ah euh duñ né du nañ euh, du ñu am un agent à 100% performant yu irréprochable mais lu ci ëpp ci li ñu xaar ci mom dina ko matal et lolu tambali bi lay doon te yaakaar nañ ne ministère yi nga xamné fa lañ jëm wala fi leen affecté structure yi buñ demee tam kilifa yañ fay fekk amna luñu lu ñu leen war ci encadrement suñ ko matalé rek am nañ yaakaar que né en tout cas li ñuy xaare ci fonction publique ak agent agent public yi dinañ ci gor gor lu matal ko ba nga xamné lolu dina amal njëriñ suñu suñu réew mi rawatina maintenant ñi nga xamné ñoy ñooy ñëw di feug buntu service public indi seen soxla tek ko ci table bi soxla yoy nak moo tax ñuy fay agent bi donc euh, usager bu ñëwee euh, ci service euh warna ñu gàttandu ko ko jox ko cër jox ko gëdd li nga mom la fa indi comme soxla ñu taxaw ci ci anam yu gëna rafet lolu dal lañuy ñuy ci ñom té lolu fàttali nañ ko aussi ci ñaari